mooy xeexu giimari Marius muy xeexu Pape Maguette Ba muy xeexu sàmmkat bi muy xeexu baykat bi muy xeexu politique bi nga xam sax jaarul yoon sànq junj naa ko foog ñu gën ko développer. bay Maguette tey élection locale yi suba gu ñu xëyee ci lañuy wax suba ba ngoon lan moo gën a jàmp wax ci agriculture bi nga xam ne récolte bi baaxul ak coono ak souffrance gi kaw kaw yi dundee Pape Maguette am na benn jigéen bu ma proposé jaay ma saaku saaku ñebbe 1000 francs bima ko joxee cinq mille cinq mille la doon joy. pour pour dëggal coono ak souffrance bi ñu nekk ci kaw gi di jankwantel et lolu presse bu ko dénoncé wul bu yeboo nga dama sa khalima lolu bép journaliste bu nangoo talal loxo wala ngay maslaha di ci seug di ci teg sa complice nga ci ce qui se passe au Sénégal Motax nak vraiment ñu ngi leen di remercier toute la presse dugal nañu seen loxo ci xex bi Japp nañu ci ñu ngi remercier soppe yi ak ñi ñi wax ay activistes mais activiste même ñun presse bi am nañ ci rôle buñ ciy taxawee mooy bu ñu nangu les politiques diaboliser activiste di leen tam ay dëmm duñ ko nangu xam nga activiste mooy lan mooy ki bëgg ki nga xam ni am na njëgu saaku ceeb li ko njëgu kilo ceeb bi dikkee mu dikkee ko ki nga xam ni amul njëgu saaku ceeb mais njëgu genn wàllu liibaru ceeb la am dañu bëgg Sénégal li muy génne ci zircon li muy génne ci phosphate li muy génne ci am koom qui ci même tir mais kenn ku ne sa nekkin nga au Sénégal am tabac Sénégal ñan tabax Sénégal ñan tabax tabaxuñu et pourtant ku ne bëgg na kër nga ni politique au Sénégal ci l'habitation habitation lan la parce que pas de am dañu bëgg a ci gouvernance bu nazi comme Hitler xam Hitler na la doon ay politique façon bu bu salté bobu nga xam da ngay xoxlo askan ngir fi nga ñu fi

ñi yor société ni fayé fayeeku waa impôt fi lañu ñu dañu joggé jóge joggé wuñu ci ngelaw fi lañu ñu pourquoi xeex bi ci luddul deug lañu nañ dellu soit xel ak deug xamni Sénégal dafa am ño xamni dara mënu len kooj c'est pourquoi je demandé à Bougane ni ko man bo ñëwee ci manifestation man duma ñëw parce que tie politique. mais mais El est-ce que li li xew nii est-ce que lu la personne moo leen intéressé parce que la personne dafa dugg ci langue politique. du Bougane je l'ai dit dès le début du Bougane parce que xam nañu ni ñuy xeex ak moom ci wàllu politique c'est la ligne éditoriale qui dérange Pa Maguette xam nga bu baax li nga lay wax. ni bii 2007 2008 2009 ñu ànd ak tey Macky Sall ñoo ñu doon tàccu tey bu ñu nekkee seen i noon parce que da nga constant fi nga nekk jóge woo fa loolu donc mooy wax bi ligne éditoriale boobu dérange, nag presse bi yëpp fa lu ñu nekkoon ku fa jógee itam xam ne loolu mooy yoon bi. parce que man lii may dund fii ligne éditoriale bi moom laa doon dund Futurs média ci jamono yi ñu Ablaye Wade tong-tongale woon li ñuy dundoon ci jamono jooju noonu tey ñun dunduñu ko fii presque nag na na nañu des toujours di crédible ñuy politique dañu ñuy nax souffrance askan wi nañu koy génnee nañuy xool suufu baykat yi ñuy dagg nañu xool maire yi ni ñuy caxat caxatee moomeelu askan wi moomeelu Sénégal nañu koy séddoo ci façon bu équitable loolu mooy suñu rôle ñun ñëpp na leen ci taxaw bi ci des